salaamaaleykum maa ngi tudd Caroline Malak dëkk Bargny toll ci yi at sama laaj bu tey bi mooy électeurs yi ñaata bés la am pour retirer seen carte électeur commission yi moom retirer carte yi commencé nañ ko euh, fukki fan ak juróom ci weeru juin 2022 dinañ ko continuer ba nga xam ni bañ ne suba la élection yi mooy 30 juillet 2022 sénégalais yi nga xam ne ñi ngi ci biir Sénégal mun nañu dem jëli seen carte ñi nga xam ne nag ñi ngi dund ci bitim réew sénégalais yooyu mun na ñoom ñoom retirer seen carte ba bisu élection yi sax mun nañu retirer seen carte donc ñi ngi ñaan di ñaax ñëpp koo xam ne vraiment citoyen nga nga dem retirer sa carte bokk ci élection yii di ñëw sama carte daal mooy sama baat